sargal leen ziyaare leen di leen bëggee Aïcha teewaar rek comme ni ñu ko faral di defee dama ne business profile te fi ñëw rek dama lay profilal sa business parce que dama fi toog pour young entrepreneurs ak ñi nga xamante ne ñooy yëngu si lu nekk man man képp koo xamante ne am nga loo yëngu rek man dinaa la invite fii waxtaan ak yow ci wàllum looy yëngu di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lal hôpital kër yi ñi nekk di dox ak feebar sax ñaanal naa leen yàlla na lu yoolu génn seen bopp di ñaanal kilifa diine yee kilifa aaday ñi caabi féete gannaaw tamit yal na leen fa yàlla génnee comme niñ ko faral di defee rek damay bàyyi suma gan gi rek moom mu nuyoo rek wax leen moom mooy kan laata ñu xuus si waxtaan bi asalaamaaleykum nuyu naa la. fay naa la Aïcha jërëjëf kontaan naa si invite bi. Mm-hmm. man maay Jatu Mbay borom JT's Creation. macha allah Jatu mu ne moom mooy borom JT's Creation waaye man laaj na Jatu lan moo tax. nga boole sa bopp ci wàllum ni nga xamante ne ñooy young entrepreneur si di yëngu si wàllum yu ja yànje yi nga xam ne yooyu lañ teg si table bi lan moo la motiver pour nga def lii. Um, suma business bi maa ngi ko commencé 2017. Mm-hmm. te soo gisee lu tax ma yëngu si mooy. dan ma employ on as a sales girl ci 2017 international trade fair bi Gambia. Mm-hmm. so ma am fa ñaari jigéen. Mm-hmm. Um, ñoo xam ne ñoom it ñu ngi yëngu si bagage yi daal. Mm-hmm. soo ma nekk di xool gars yi di xool di xool ma leen waaw kon ka ñaar yi mën nañoo dem ba di defaral li seen boppa mm-hmm. waaye not man tamit ma dugg si. waaw soo man it laa nekkoon di bàyyi xel. Mm-hmm. bagage yi di setaan tamit YouTube so bi use naa ko very wisely. saa yu ma ko setaanee si. trade fair bi dem kër ma practice. di nga fa jëlee waaw so loolu daal noonu laa commencé man ah xaaral daal ma starté ko. di ko di ko yëngu di si yëngu daal. ok macha allah man kay dama gis table bi nu mu yànjee ma xam ne yow jàmbaar nga. jërëjëf ba yaa ngi nekk di yëngu si wàllum lan nga si jot a dunda depuis neex sax. Mhm. bi yomba na yombut. Mhm. neex na naxari na. Mhm. so face naa si lot of challenges te challenges yooyu noonu mooy. Um, access to finance. loolu foog naa ne képp a koy commencé business am bi es mhm. finance dafa always métti. so xaalis yenn yi damaa dem am ideas yu bari pour mhm. defar bagage waaye su ma toogee ma ne waaw lan moo ma jox xaalis pour ma mun a defar so xaalis bi daf lay nekk problème. Mhm. ba pare um, bagage yi tamit Gambia fii. dafa metti torop pour ma jot ko. yu bari duma koy mën a am su dangaa gis ne Sénégal rek laa ko mën a jotee Gambie amut. su maa ngi gërëm tamit Sénégal ñoom ñu ko mm. def pour mu yomba. ñun waa Sénégal benn bopp la sax kenn mënu ah, ko xar ñaar waaw <laughs> waaw di mm. suma fan si nga xamante ne ñoo nekk Sénégal di seetaan programme bi di looy yëngu jotu li nga wax noonu nekk na lu important parce que soo seetee Sénégal ak Gambie benn la. soo demee foofu noonu jën jënd bagage Sénégal itam ñu ngi ñëw fee di jënd la nga xamante ne nekkul seen dëkk te ñoom sax ñu ngi ñëw fii di jaay te yow sax sa bagage yi xam naa ne amul Gambia mu ngay dem fu nekka te li ngay liggéey sax dafa creative dafa nekk loo xamante ne mooy loolu parce que soo seetee African things nga nekk di use sax wax sax dafa nekk loo xamante ñun dañ ko fonk ñun africains si kon na gàcce ngaa laa ma jotu yow moom macha allah léegi yow kenn yaa nekk di liggéey wala dafa am ñoo xamante ne yaa ngi leen nekk di jàngal um, man business bi maa ko moom waaye dama lay wax ne man kenn moomuma ko business bi daal la ma si yaatal ñëpp. Mhm. so lu ma def mooy parce que dama dee gis ne xale yi jànqa yu bari dañoo toog duñ def dara su ko defee ñu teel a sëy mhm. nekk housewife mhm. soo ma ne ok fu mu nekk ne lan laay mën a def ba jàppale jigéen yi so dama leen dee indi suma kër jàngal leen métier bi within one month at least da war a mun ten different products so soo demee ba mun loolu noonu dana ngaa dama laa ber nga commencé di defaral bi sa bopp yow it pour mun a am ay income so daal alhamdulilah mm-hmm. fu mu nekk nii am naa ay team daal du man kenn waaye am naa group mm-hmm. so da gis ne fu mu nekk nii man mi suma boppa su ma amee large contract mm-hmm. dama lay indi xale yooyu suma kër man leen ñëw leen ngeen jàppale ma su defaree ba pare ma ikkati lu ma am ku nekk ma jox la so ñooñu tam na leen dimbale loolu moom macha allah parce que yow yaa ngi yaa ngi yëngu si dara yaa ngi bugg a keneen tamit mu bañ a toog comme noo ko waxee si biir wax tamit bugguloo commit nga toog amuloo benn njëriñ wala am nga am nga looy xalaat sax waaye amuloo pour nga def ko soo léegi yow looy xalaat mooy xanaa dem sëy rek toog suma kër jëkkër waaye am jëkkër tamit taxul ñu ne ngay dem toog sa kër jëkkër doo jàppa si dara at least comme ngay dimbale sa boppa tamit di yëngu si lu ndaw nii parce que yéen a góor ñi tamit dañ am yërmande dañoo xalaat ne man suma jabar war ma koo bàyyi comme mu toog nii soo nekkee di yëngu si dara moom sax dina la jàppale at least su laa jëndal bagage isa nga nekk li créate di jaay lu ndaw loolu noonu sax mun nay fata yeneen bunta kon nag loolu nekk na lu am solo wala yow naka nga nekkee di jàngale xale yi ndax da nga leen naa jàngal suñ mënee nga dem wala ñu dem uti feneen wala ñeneen ni suñ mënee comme dañoo liggéey ak yow wala da leen naa jox certificate ñu génn ñu dem uti feneen liggéey um, right now nii man suma plan mooy woon training bi mm-hmm. every month dama am new baaj mm-hmm. waaye benn batch rek laa amagum ma stop mm-hmm. because of covid 19 bi so man lu ma xalaat right naa nii su ma indi mooy after coronavirus bi. Mhm. dama am ay xaleel yu ma jàngal si suma kër. Mhm. waaye du nekk free parce que bagage yi man tam dama koo jënd. so suma training man si kër bi. Mhm. every month gars yi ñoo fay two thousand dollars yi. te two thousand dollars yi boobu noonu yow da ngaa nekk suma kër. access yu nekk suma kër yëpp duñ ko am. so time añ jotee di nga lekka. time ndéewoo suma lekka lu ma lekka loolu ngay lekka. den dinaa la jàngal sa time waxtu su jotee nga ñibbi. waaye after training bi one man training bi dinaa la jox certificate uh-huh. certificate boobu noonu foo dem di ko mën a wane pour wane waxee wane ne Um, def nga métier bi mm-hmm. mun nga métier bi mm-hmm. waaw ah jot loolu de nekk na lu am solo kon yéen mi nga xamante ne yéen ay yuut toog mm-hmm. nekku leen di liggéey si dara wala jàpp leen si dara war ngeen a a jàkkaaroo kii di jotu moom tamit mu wan leen li nga xamante ne mooy talentam waaye jotu yaa ngi doon wax comme si biir internet bi nga di jàngee lu bëri ba pare demoon nga tamit si trade faya yeeg yooyu noonu li nga war nañoo wax ne yan expérience nga si jot a jànga lan moo tax nga gën a def sa bopp si lii seetuloo leneen ba pare sa biir wax tamit tukki woon nga léegi toogloo foofu noonu nga ne xaaral man jaarut sax may dellu Gambia di wane li nga xam ne mu ngi suma bopp bi damay bàyyi noonu rek toog fii nii liggéeyal suma bopp dencal suma bopp. Um, expérience bi ma si am. si wàllu let's say si trade fair bi. visibility bi. Mm-hmm. parce que 2017 dama fa nekkoon. Mm-hmm. pour liggéeyal ñaari nit as a sales girl di leen jaayal. ok just after trade fair bi ma am liggéey mm-hmm. te ku ma employé woon tamit si trade fair bi lam gisee suma liggéey ak su ma laan activé uh-huh. mu employé ma mm-hmm. waaye ma jékki-jékki wan yàlla fa am ma dem ba xam ne waaw man liggéeyal daal sa boppa dara gënul ko neex mm-hmm. noonu laa beree man bàyyi startale suma boppa so bu ma demee ba start ma boppa nit yëpp di ma xam Facebook yooyu den mhm. ma am ma nit mhm. si follow ni iya bi mhm. ñu jox ma free stall man tam ma nekk si trade fair bi di jaay suma bagage yi so visibility bi daal is very very important ba pare affaire yi tukki bi tamit um, tukki bi dama fa juddoo rek waaye togguma fa anyway waaw dama fa juddoo rek bitim réew waaye togguma fa ma ñëw Gambie waaye man dama lee wax ne sax su ma amoon lu ma génnal ngàmbee laay toog def suma business yëpp dama leen wax ne sax tukki dem bitim réew man dama believe ne si suma Gambie suma uh, country fii Gambie fii dinaa fi tekki te insha allahu rabbi yi dinaa fi tekki mhm. so even bitim réew su ma fa demee sax bëgguma faa toogee ña ñaari weer rek ma dellusiwaat Gambia liggéey ba pare jàppale suma nit yi mhm. loolu moom neex na tekki fi am na comme nu ko jatu waxee rek kon ñu gëm am gëm-gëm suñ boppane luñ bugg rek yàlla dinañu su jàppale waa jatu euh, ba léegi ñu si biir waxtaan bi léegi dañuy laajte comme jatu kan moom ku bëgg a jël jot si lu muy jaay naka la muy def ak fan nga xamante ni ñooñu nga nekk di collabo pour ñu laa jaayal sa produit parce que yaa ngi wax ne comme amaguloo bitik sa kër nga dee jàngale te ñu lay ñëw jaayal sa bagage yi foofu lañ ko dee jël wala yaa ko di yóbbu pour deliver. waaw ñun ku ñu bëgg Euh, ku bëgg a xam foo nekk rek danga ñu ngi am Facebook page ak mhm. Instagram mu ngi tudd JT's Creation mhm. wala nga call ñu si 367 1001 ba pare bagage yi tamit ñun amagun bitik man amaguma bitik kër laa lay liggéeyee mhm. waaye ma ngi am ay ay um, outlets so soo buggee mu ngeen a dem si Treasure Beauty Closet bu nekk um, Kerba Avenue wala ngeen dem si Cherish Gifts gift bi bu nekk Sénégal bi foofu di ngeen fa amee suma bagaas yi. waaw yow laala jaaraama laa la mën a wax jëtu yow moom jàmbaar nga léegi comme que accès neen si cappaandaw bi rek léegi dama lay bàyyi yoo nga tàggatoo wax sa final words laata ñuy dem. Euh, maa ngi gërëm maa ngi laa gërëm yow Aïcha yow bu ma invite bi mooy suma first time TV interview so maa ngi laa gërëm li nga ma joxee opportunité bi pour ma ñëw mm-hmm. pare jox nga ma confidence bi tamit mm-hmm. parce que dama la xool yow it nga nekk ndaw mm-hmm. bu ma la xoolee nga nekk ndaw rek laa am confidence ne li nga mun a def ma ne dinaa ko mun a def so maa ngi gërëm ñëpp képp kuy seetaan maa ngi laa gërëm ba pare di wax ñun jigéen ñi nañ leen jàppalante ne leen ibi suñu xool bi ñu yaatu Ah, ba pare ñu ñu dimbalante daal. loolu nekk na lu am solo billahi walaay macha allah Bintu li nga wax li nga wax noonu nekk na lu am solo suñ jàppalantee suñ boppa rek yàlla ñu jàppale kon na gàcce ngalaama xam nga looy yëngu moom dañ fi toog rek surtout waa Sahel Network TV dañ fi toog bugg a dimbale ndaw yi parce que soo waxee ne ah, da ngay njëkkee mag ñi doo xam luñ ndawee di njëriñ soo soo njëkkee ndaw yi ñuy dem dem bay yàlla oh, àggal leen fi nga xamante ni foofu lañ bëgg a àgga kon mooy loolu daal comme yaa ma gën a noo time bi xoj nañu ñu tàggatoo rek Aïcha teewoon rek di waxtaan nag yéen ci wàllum business profile dina ñëwaat ak yeneen i feem ak yeneen i mm, comme niñ ko faral di defee rek bye